Giri la 11 dimanche Sa booy ñaa Niang. yàlla na yàlla defal jàmm ay ñaari booy jeune lañ yoo xam ne ku ci nekk da nga gëm sa bopp ku ci nekk am manin di leen ñaanal yàlla ku ci nekk nga ñëw ci làmb ak dal ak say supporters et que le ku ci nekk am nga loo man te xam naa ni mbër du bàyyi maninam di leen ñaanal yàlla di ko ñaanal seen mbokk di ko ñaanal seen ay supporters. parce que tamit combat la boo xam ne ku ci nekk rek xam nga coow li bari na mais tamit nañ ko teg ci fair play rek waaw. Sa Thiès lu mu mën. Sa Thiès waaw c'est un xam nga c'est un c'est un leader rapide il est offensif il est offensif te gëm na te offensif am boobu fi mu fi mu fi mu yegg moo ko fa yóbbul boo xam bu arbitre sifflé li li mu mën da koy def xam nga. bu dee Boy Niang moom lan mooy atom. Boy Niang parfois il est attentiste il est attentiste ay déplacement aspiré la def nànk ba gis opportunité dem. moo tax combat la boo xam ne mënut a yàgg. am na favori. non favori munu ci am parce que sans dépendre rek ni ñu koy aborder mais favori mënu am ci combat boobu en tout cas que le meilleur gagne di la ñaanal jàmm ku ci juum daal wala daal vigilant woo ci premier minute di asalaamaaleykum doo xam lu muy. la leen baal Sa loo koy moytuloo diggante ak booy Niang. non non dara. <laughs> lan lay moytu. Boy Niang ñu ne daa mën a bëre mën a xeex jëli entraîneur américain fële États-Unis ñëw toog. bëre bëre ci àdduna déggoo may la Falaye Balde Double Less bëre ci la raay bi téenee si ñun kuy bëre da ngay bëgg xanaa kay di bëre nii rek di bërantu waaye nag bëre ñun ñoo ko moom non non ça la xale la avenir moo nekk ci kanamam rek moo war a liggéey donc xam naa ne yàlla moo koy mbër mbëri ndaw yi nii rek waaye du seen morom ci dara <laughs> morom ci dara ñaan yàlla yàlla defal ko jàmm yàlla mooy ko ndam parce que tey du ma wax ci kenn loo xam ne lu ñaaw wala nag parce que sekk ma ko ñoom sama rak laay ñaanal ñaanal yàlla may kon ndam bu seddu guy bu amul benn werante amee ah mais c'est normal c'est normal daf fa dugg duggati fa duggati fa fa mais yàlla na ko fi yàlla yemale. dimanche lu ngeen ko dencal. luñ ko dencal. xanaa ñaan yàlla may ñu ndam. ñun loolu rek la ñu am. na sur tous les plans nag. comme xale la comme ni ñu wax rek combat jànq la quoi combat la boo xamante ne ñoom ñaar ñëpp ay athlète lañu ay mbër lañ yoo xamante ne côté technique côté bagarre yëpp dañ ci fort boo gisee bu dee xeex bu jaar yoon Boy ñaa moo ci tane moom day xeex direct bu dee agressivité nag ak euh, ñeme action kële moo ko ëppale Sa Thiès moo tax combat la boo xamante ne ku ne mën nga daan sa morom. ci xeex bi ni ma la déggee kon Boy Niang dafa mel ni bu ñu moom moo ëpp avantage. non ça dépend rek mais xeex bu jaar yoon moom booy ñaa moo ko gën di def mais kële moom moo gën a agressif waaw te tamit moo gën a ñeme action. jaxasoo bëre bi kan lay avantage si ñoom ñaar. mën na ku ëpp doole ku ci ëpp puissance moo ëpp sens si bëre bi ndax ñoom ñaar ñëpp a mën a bëre kon nag ñaar ñu mën a bëre buñ tappalooyee jaxasoo ki ëpp doole toujours mooy ëpp avantage waaw. am na favori combat bi. waaw am na favori man ni ma leen gisee dernièrement nii damaa gis mel ni Sa moo xaw a ëpp Boy Niang nag moom yàgg na di yem mais c'est un te am na force mais man daal damaa ragal moom bu ku ci ëpp doole daal buñ summeekoo ñoom ñaar ku ci ëpp doole man mooy nekk sama favori. waa combat bu nara neex la bu ñu génnee cadre far ñu wax ci ñaari mbëri ku nekk ak fooram tey Sa Thiès rapidité la te munul xaar mbër. te ci rapidité am ci la bëgg a def lépp lu muy def combat maanaam da koy connaître ci benn temps du yàgg parce que Sa Thiès bu ñu seetloo bëreegul combat bu diire mais nag na def très attention parce que boo Niang dafa fooree loolu li Sa Thiès mëne loolu fooru Boy ñaa la te boo Niang ndaanaan la foo natt bëreem weesu na comprend comprendre nga mais nag man Pikinois la Boy Niang laay ñaanal ndam yàlla na ko yàlla may ndam bu seddu guy ndax sama gaañ la waa dàq bëre làmb la daal ñoom ñaar sans nañ leen jox cinquante cinquante waaw man bu ma dee joxe favori booy ñaa laay joxe favori parce que moo ko avantage si xeex waaw waaw foofu la favori mi nekk waaw mais doole dañuy joxe cinquante cinquante bëre cinquante cinquante xeex bi ñu jox ko. waaw saakees boo ñaa kon war rek ñun combat bi yàlla def na man ak saakees euh, yëpp ñoo li si ëpp ñoo doon bokk di entraîné ak dinia waaw kon dañuy ñaanal saakees yàlla may ko ndam waaw ñun loolu la ñaan daal. mais dama bëgg nag nga jàngatal ma combat bi techniquement parce que seen mag nga xam nga booy ñaa donte contactu leen saakees moom yéen a dëkk yéen a ànd di contact mais techniquement la bëgg nga jàngatal ma combat saakees booy ñaa. saakees booy ñaa man xam naa ne saakees ko ëpp lépp. parce que làmb ji mu neexee saa kees a koy neexal bu naqaree booy ñaa koy naqaril man xam naa lool te saakees kees booy fu mu nekk fu booy ñaa nekk saa kees dana ko fekk. ku ëpp doole ñoom ñaar. saa kees doole. ku dàq bëre. saa kees a dàq ku dàq xeex. saa kees lépp saa ko dàq. kan moo ëpp fit. ah ko dàq lépp fit moom si saa kees la jeexee. waaw saa ko ëpp lépp ñu ko ñu war a bëre le 11 mars muy Sa ak Boy ñaar Modou Dia xam nga ñaari mbër yooyu. waaw xam naa leen nii xamul làmb rek ay ndaanaan lañ quoi mais combat la bu nga xamante ne daal ku si nekk war na mën a def attention si boppam quoi parce que day ku si nekk lii sa morom di bëre daf la arrangé quoi. yee mama bi Sa Thiès di mama dafa a ah, Boy ñaar dafa bëgg loolu euh, kii tamit xaar bi muy xaar Sa dafa bëgg loolu quoi Sa ku ko xaar mu fekk se la est ce que fekk si Boy Niang wóor na. ah moom laa la ma moo tax ma la ku si nekk li ngay bëri rek dafa arange sa morom. waaw. kaw mën na ci combat boobu. bon xelaatu ma ko de bëre lay doon sama xelaat bëre bu gaaw sax. am na favori. bon xel gisuma si favori nag cinquante cinquante. waaw combat bu neex trop trop parce que combat xale la li dama dégg ama seen naa combat jànq loolu combat jànq la boo xamante ne nii. maanaam am na importance importance boo xamante ne nii kenn ku nekk am na fu la bi war a yóbbu ci seen carrière quoi. ñoom ñaar bu ñu jaxasoo bëri kan mooy avantage. non ñoom ñaar kenn ku nekk am na avantage ci biir combat bi parce que Sa Thiès attaquant la day dem te bëritu Sa Thiès mën naa perturber ku nekk loolu moom Boy Niang xam na loolu bu baax mais Boy Niang tamit mbër la moo xam ne nii c'est trop intelligent parce que day liir combat moom. parce que boo xoolee combat mi ñu abordé yëpp da ko liir liir boo xamante ni saa boo jugee ñëw si moom moo la mën waaw boo taxawee ne xaw ma si dara mais booy moom ñaare du baax quoi franchement parce que combat mi yim yi dañuy ñëw siif ko te boo ko siifee rek c'est tout intelligent quoi moom moom xam nga côté boobu da see xarañ macha allah. bu ko Sa siifee est-ce que mën na baax ci Sa dina ñëwee noonu est que Sa du tay du sens stratégie parce que tamit dina xam ne kii lii mooy foram fooram du ma ko ko may damay jël foram teg ko jël leneen. am na favori ñoom ñaar. non man mën nañ joxe cinquante cinquante laay joxe waaw mun ma joxe cent cent cent cent cinquante cinquante. cinquante cinquante rek. waa parce que ñoom ñaar ñëpp am ay xaylan te kenn ku ne yor nga loo xam te ne mën naa daan sa morom facilement kon cinquante cinquante la. waaw li ma leen di ñamal mooy lenn daal laa koy ñaan su bis ba li mu wax. ne bu arbitre fu booy ñang nekk mu fekk ko fa bu mu ci dindi lu toll nii li mu doon bëree daal lan ko ñaan bu mu ci dindi dara bu arbitre rek na jóg ñëw ci fekk si booy ñaa dégg nga attaqué ko lu muy gis bu keroog su keroogee mu gis lu mu mës a gis bu keroogee lay xam kan mooy booy ñang Sénégal keroog la ñuy xam kan mooy booy ñaa waaw xamagun ko nag mais bu wis booba la ñuy xam kuy booy ñaa mais lii ñoo ko ñoo ko def ah bien sûr ama seen démb dama koo dégg mu ne min na kër gi dugg naa fi dugg na fi ñaari yoon booy ñaa ñëw dugg moom dafa tar ci làmb mu ñuy wax ak moom ci làmb ah carrière yi yëpp da ko année balance bu toogee deux ans bëre bëre un an ko amul mu wax ci moom. Boy Niang lu ngeen ko dencal pour dimanche. yàlla may ñu ndam. incha allah ci ay fans surtout les fans parce que làmb dafa toll foo xam ne dañuy soxla ah xam nga dañuy dañuy soxla ñëw dal ñëw seetaan accompagner sa mbër bu daanee nga jubilé buñ ko daanee. ñaan na ko yàlla nga ñibbi gentiment parce que làmb soxlootuñu loolu parce que tamit ñu ngi ñuy joxoñ baaraam te ñu ñuy joxoñ baaraam rek dañu bëgg def ay affaire xam ndax nañu ñu ñëw ak discipline ñëw supporter seen mbër que le meilleur gagne jaay jëf